salaamaaleykum mbokku internet di vendredi 16 août 2024 ñu ñëw ak yéen ci xibaar yi njëkk jëm ci tàggat yaram xibaar yi njëkk jëm ci tàggat yaram nag dinañu ñëw ci waa Barcelone am na ku ñu xaatimaloon contrat ngir mu bokk ci staff bi li liggéey ak ñoom waaye na ñu ak moom naam bi ñu ko xaatimalee contrat yàggut waaye téqalikoo nañu ak moom indi fa keneen mu wuutu ko fa dinañu ci ñëw ci biir xabaar yi indi leen ci ay leeral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 xibaar yii ñoo ngi ci ànd ak Serigne Cheikh Ndiaye Serigne Cheikh Ndiaye nag Serigne lasraar bu yàlla baaxal la yàlla may na ko lool ci wàllu seet bu leen yàlla boolee ba mu seetal la incha allah ba ngeen jëflante doo ko réccu te nit kat faw nga liggéey ak moom il faut nga seet ay mbiram te moom nag seet yàlla may na ko ci lool waaye wàllu boole tamit yàlla may na ko ci ñu koy wax noob képp koo xamante ni da nga am koy bëgganteeg Serigne bi nag fawul folowut bu fekkee jokkoo ngeen dina la ko noobal ba ngeen gën a dëppoo ci xalaat ak lépp waaye kaaraange tamit yàlla may na ko ci lool ndax nit nag dafa war a aar boppam ndomba bii ngeen di gis baax na lool képp ku mu jëflanteeg ba jox la ko di nga xam ne ndomba gi baax na lool wàllu càngat tamit yàlla may na ko ci am na saafara boo xam ne bu leen yàlla boolee ba mu jox la ko nga sangoo ko di nga gis yokkute ci yow waaye tamit wàllu këyit yàlla may na ko ci lool rawatina ñi bëgg a tukki muy wàllu passeport yàlla may na ko ci lool moom Serigne Cheikh Ndiaye waaye feebar yi askan wi tamit yàlla may na ko ci xam bokk na ci hémorroïde ndoxum siti ak yeneen feebar yi nga xam ne dafa làmboog askan wi rawatina bi ñuy wax néew kattan ci ñi ma ko sañ a wax néew kattan googe yàlla may na ko ci lool waaye tamit sëriñ bi am na saafara boo xam ne day maye xaalis képp koo xamante ni sangoo nga ko cangat boobee di nga gis ci wàllu xaalis ne yow mi ubbeeku nga sëriñ bi nag pour nga jokkoo ak moom ni ngay def lu yomb la numéro yii ma leen di jox ngeen ko mën a jotee muy 78 475 27 82 numéro yooyee yépp boo ko woowee moo xam whatsapp la wala appel normal di nga ko jot muy Serigne Cheikh Ndiaye képp ku jokkoo ak moom yàlla na sa aajo faju ñu door xibaar yi dooree ko ci waa AS Pikine ñoom nag tabax gi ñuy tabaxaat seen club boobe noppeeguñu guñu ca ba léegi tey jii siiwal nañu ne am nañu gan gan gi mi ngi tudd Mangone Ndiaye moom nag ma woon ca Dakar sacré waaye officiellement doomu Sénégal bi jógee na ca club boobee xaatim contrat ca AS Pikine kon saison bii di ñëw incha allah moom mii di Mangone Ndiaye ci Ligue 1 bu Sénégal club bu ñu naan AS Pikine lay football. ñu jógee ci Mangone Ndiaye ak clubam bu bees jël beneen doomu Sénégal kii mi ngi tudd foode ballo ture ma ngay football ci club bu ñu naan AC Milan waaye club boobee bëgg-bëgg bi ñu am moo di teqalikoo ak doomu Sénégal bi Fabrizio Romano sax nee na. club boobee di AC Milan juboo nañu ak Saint-Étienne ngir jaay leen doomu Sénégal bi kon nag mbir mi jamono ji ci moom Fodé Ballo-Touré la desee moo joxee gul kàddoom bu joxee kàddoom balaa yàgg mën naa am waa Saint-Étienne officialisé ak ñëwam ci seenub club ci fàttali ay Saint-Étienne googee ci Ligue 2 bu France la nekkoon waaye yéeg nañu saison bii di ñëw ci Ligue 1 bu France la ñuy football jege nañu lool nag ngir xaatimal contrat doomu Sénégal bi tudd Fodé Ballo-Touré xibaar boobu Fabrizio Romano moo ko xamle ñu jugee ci Fodé Ballo-Touré ak bëgg-bëgg boobee waa Saint-Étienne am ci moom jël doomu Allemagne bi tudd Leon Goretzka moom nag mu ngay football ca Bayern de Munich club boobee tey jii dañuy jongante coupe d'Allemagne match boobee nag moom mi di Leon Goretzka du ca mën a bokk ndax boolewuñu ko ci group bi Bayern de Munich club bi muy jàkkaar lool club bi muy jàkkaar lool mi ngi tudd ULM 1846 waaye moom mi di Leon Goretzka kii tàggat ba yéen de minute tudd Vincent Kompany boolewu ko ci list bi nee na ko sax saison bii ñu dëgmal konte wu ma ci yow waaye doomu Allemagne bi jamono ji noppiwul ngir jógee ca Bayern de Munich bëgg-bëgg bi mu am moo di imposé wu maanaam jëmbat ful la ngir mën a des ca club boobee waaye jamono ji moom compagnie nee na ko konte wu ma ci yow loole li koy firndeel moo di tey jii du mën a bokk ci match bi nga xam ne Bayern de Munich dañu koy amal mu soxal coupe d'Allemagne xibaar boobu Sky Sport moo ko xamle. ñu jugee ci Leon Goretzka ak xabaaram bu naqari dem ca waa Tottenham ñoom nag siiwal nañu ne am nañu accord principe ak waa Burnley ngir xaatimal contrat doomu France bi tudd Wilson Odobert gone gii nag excentré bu mën li muy def la accord principe nag moo di jubo ci kàddu ci diggante ñaari club yi bu dara soppeekuwul ci diggante bi mën naa am waa Tottenham officialisé ay mbiram xaatimal ko contrat mu dem ci seenu club jàppale leen moom mii nag excentré bu mën li muy def la ñu jugee ci Wilson Odobert ak bëgg-bëgg boobee waa Tottenham am ci moom jël doomu Norvège bi tudd Oscar Bob di football ca Manchester City fan yële weesu waxoon nañu leen ne dafa am ab damm-damm groupe ba bu ñuy door saison bi match yi ñuy njëkk a amal du ca mën a bokk loolee nag Pep Guardiola da koo dëggal waaye Pep Guardiola li mu xamle moo gën a miti fuuf ndax Pep Guardiola nee na lu mu gàtt-gàtt doomu Norvège bi dina toog ñett jàpp ñeenti weer door a a dugg ci terrain football kon moom mën nañoo wax ne xaajub saison bi yépp du ca mën a bokk ngir jàppale waa Manchester City waaye tamit Pep Guardiola mi di tàggat wax na ci Rodri champion d'Europe bi nga xam ne doomu Espagne la moom du mën a bokk ci match bi nga xam ne moo war a dox dimanche incha allah ci diggante mën Manchester City ak Chelsea Manchester City moo koy fekki dimanche la bu 15 heures et demi jotee match boobee Rodri du mën na bokk ndax Pep Guardiola nee na physiquement pareegul maanaam li ko war ci entrainement yi matalagu ko kon nag match boobee moom mii di du ca mën a bokk ñoo ngi xaar beneen match bii ñëw ba xam dina noppi à cent pour cent waaye dimanche moom moom mii di nekk champion d'Europe noppeegul du mën a bokk ca match boobu loolu ki ko le moo di Pep Guardiola ñu jugee ci waa Manchester City ak seen ñaari xabaar yu naqari waaye ñoo nga ca Angleterre googee ba léegi ñi ëmb footballub Angleterre nag jël nañu ndogal ci arbitre yi jamono ji arbitre bu nekk am nga droit wax fi nga far loole nag bu ñu ko amalee mbir mi mën naa gën a yomb ci supporters yi ndax li ñuy bañ moo di kenn ku ne fi nga far ñu bañ koo xam maanaam yow mën ngaa faral Chelsea ñu jox la matchu Chelsea nga faral Chelsea defal Chelsea li ñu bëgg te loolee nag du dëppoo ak sarti yi léegi nag bu ñu xamee kenn ku ne ci ban club la bu boobaa dinañu mën a éviter maanaam dinañu mën a gantal jafe-jafe yi nga xam ne mooy am ci match yi ndogal loolee nag la ñi nga xam ne ñoo ëmb footballu Angleterre bëgg a jël arbitre bu nekk ñu fexe xam ci ban club nga bokk club boobee doo arbitrer ay matcham te loolee jàpp nañu ne dina gën a yombal mbir mi. ñu jugee ci ndogal loole ñi ëmbu Premier League bi bëgg a jël ci arbitre yi dem ca waa Barcelone ñoom nag ki leen di tàggat tudd Hansi Flick mi ngi waajal match bi koy xaar suba bu dee ñii moom nee na noppi nañu à cent pour cent ngir bokk ca match boobee doxal muy Lamine Yamal mi nga xam ne bërki démb la jëf baayam jëf ju ñaaw nee na Arsenal noppi na à cent pur cent kenen ki moo di Pedri mi nga xam ne ca Europe ba la demoon jëlee fa ab blessure moom Pedri noppi na à cent pour cent ki noppeegul maanaam ki pareegul du kenn ku dul Dani Olmo moom gan la ca Barcelone waaye physiquement doomu Espagne bi noppeegul kon suba du mën a bokk ci match bi nga xam ne mooy dox ci diggante Valence ak Barcelone di amee ca Mestalla match boobee tamit waa Barcelone siiwal nañu ban mayo la ñuy sol mayo jaune rouge bii ngeen di gis moom la ñuy sol suba ngir jàkkaarloo ak Valence ca Mestalla bu 19 heures et demi jote ñu jugee ci match boobu war a dox ci diggante Valence ak Barcelone waaye Barcelone googee duñu ko génn gum comme ni ma leen ko waxee ci bopp xabaar yi Barcelone téqalikoo nañu ak Thiago Alcantara dañu ko maloon contrat nag mu bokk ci staff bi nekk traducteur maanaam su fekkee Hansi Flick wax na allemand mu tekki ko ci espagnol ndax Hansi Flick kat xóotul lool ci lakku espagnol li ñu bëggoon nag moo di lépp lu mu wax ci allemand moom mii di cago Alcantara mu tekki ko waaye club bi ak cago Alcantara dañoo am jafe-jafe bu ndaw loole bokk na ci li tax téqalikoo nañu waaye yemuñu ca wut nañu ku ko wuutu ki koy wuutu ca poste boobee du kenn ku dul Arnau Blanco moom la ñu tànn ngir liggéey bi nga xam ne moom la ñu doon doyee Thiago Alcantara mu matal ko officiellement Barcelone téqalikoo nañu ak cago Alcantara